ashay lañ ëpp wax ataay ci arab yi waaye teewul nag suñ bi daan jëfandikoo ataaya noonu moom lu bare bari mel ni ba tey naari ganaar daañ koy waxe noonu kon suñ bi ne rek yàlla may na ma may yoo da ko dëppaleeg arafi ataay yi ba li am saga ba ci yaaja mi ataaya ni yàlla may na tagok tàggoog luy yàqu yàqu lépp luy gàkk lépp luy nax nax ba faw taqoog tawfiix ji ko yàlla defal ak barkeeku jàpp ni ci lu wóor wóor faw faw am na jotaay bi suñ bi toogoon ci bisu jubeer ji tolloog ñaar fukki ñett ci weeru arabi husani muy rakki gàmm at men men la bam sos la mu daal di bind ataaya am saga mu ne ikramun taaga mu ne tawfiqun ba nopp dolli ci wa alif ga bijji nak ata ji muy ata mu bind fa ijabatun ba nopp dolli ci wa ya ajamu bind ci yaqinun kon kon jotaay boobu suñ bi dane bat yalla may nako ci ataya ak teral faaw tawfiq faaw nangu defal ko ijaba faaw ak nak yaqin faaw ataaya kafe daal sëñ bi daana ci waxtaane lool xéwal yi ko ci yàlla defal ak daa ko digle boo digle waxtaan yi sëñ Alaaji Mbàkke dajale noonu ci téere yooyu da ko ci gis lu bare bari